bismillah ikfini Hisnul Abraar di tooli ba Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadre yi nga xam ne moo nekkee ci biir Jolof sëriñ bi di fa bay ak liggéeyal yàlla ndax ci bërëb bi taxawal na fi daara joo xam ne dañu fiy jàngale alxuraanul karim yar ak tarbiya ren jii ci atum bi bayaat na fi ni fi baye woon at mi weesu ñu bay fi gerte ak yeneen xeet waaye toolu gerte yi lépp ñor liggéey bi mat Serigne Bassirou Mbacke moom sëñ Abdou Khadre sant liggéey bi ak mbàcc mi ak dajale geek lépp lu ci aajowu Serigne Sidi Naar Diène mu ànd kook mboolem taalibe yi ak kilifa yi ñëw teew fii ci Hisnul Abraar ngir matale liggéey boobule ñoo ngi ko tàmbali woon ci aljuma dëppoo woon ak le 24 novembre 2023. ألا ألاقي يا الله أزاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألا يدر منك يا الله مليك يميني وقل بزال يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله sëriñ Basiir Mbàkke moom sëriñ Abdul Xaadir mi nga xam ne mooy borom tool yi di kilifa gi moom it ñëw na fi teew ànd ak taalibe yi ak mboolem kilifa yi liggéey bi liggéey bi nag sëriñ Sidi Naar Diène ak mboolem taalibe yi mu ko àndaloon ak kilifa yi liggéey nañ ko ci liggéey bu set te sell lépp tege ci yoon ñoom taalibe yi nag farlu woon bu baax a baax ci liggéey bi santaat bu baax a baax sëriñ Sidi Naar Diène mi nga xam ne moo doonoon jëwrin ji ñu àndoon ak ndigal li nga xam ne moo wàccoon ci kawam. tool waaw tool nag mbégte lañ ci gis ndax wax fa dëgg yàlla àddunoom lépp loo gis ndigal da cay baax ndax bu sëñ bi joxee ndigal ñu defee ko ni mu ko bëggee tamit day doon loo xamante ni tamit waaw lu kii la ñu naan sëñ Tuubaa képp ku fi teew rek yàlla defal la jàmm ci bàcceef si yaxamal xadim kontaan naan baax a baax am murit tamit lu koy yokk rek la war a def ndax murit moom liñ ci xam mooy liggéey jox sa jox jox sa sëriñ ko defee nag moom képp ku mën def noonu rek nga ko def ngir sëñ Tuubaa ñu naan yàlla ñëpp am jàmm ci barke borom Tuubaa ñun dañuy ñaan yàlla sunu borom sunu liggéey bi ñu yeggale ko ak jàmm ndax dara gënt a neex sa kilifa bi nga yaakaar nga jébbalu ci moom àdduna ak àllaaxira ñu jox ko liggéey bu toll nii mu woote nga nga yàlla suñu borom dimbali la nga mun mun see kon dañuy ñaan yàlla suñu borom mu dimbali ñu ñu eggale ak suñu suñu sago. waaw waaw macha allah mbooloo mi ñëw nañ Kajoor Saalum Dakar ñëpp ñëw nañ taalibe yi ñëpp ñëw nañ ñuy ñaan yàlla suma borom mi nga xam ne dara taw ko si Sidi Naar yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér. mu yàgg a woote ñu yàgg a wuy si ñu gën cee am ndam daal te am nañ ci yaakaar it incha allahu rabbi waaw moom Mbacke Balla Aïssa moom def na la ko war bu mu ko joxee sëñ Mountakha it sëñ Mountakha wëlbati ko na ko ki nga xam si mooy sunu sëriñ sëriñ Sidi Diène moom sëriñ Naar moom ngir mu liggéey ko moom it moom moo ñu woo moo tax ñun ñu mbooloo mi ñun ñëpp ñu ñëw wuy si Kajoor Bawal ñëpp ñëw nañ kon jenn yaaram yow sa sa sa waar wàcc na. ñu ngi lay ñaanal yàlla suma borom bu déwénee ñu nga woote ko ñu mën laa fekk si ci ci lépp rek mu doon ab tawxiir ak taysiir. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk taalibe yi mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen sant bu baax ñëw ngeen ñëw fii fii nag leen fi indi noonu mooy Serigne Sidi mu Serigne Naar mooy jot ndigal ci Serigne Mountakha mu di ko liggéeyaloo fii ni ko liggéeyaloo woon daaw rek ñun nag amuñu ci jenn wax lu dul rek lam ñu digal lan leen fas yéene def lam ñu fa tere ñu bàyyi ko mun noonu wàcc leen fii ndax ñu daan da wàcc ndax ñun digal rek fi mën fi indi loolu dong dong mooy mooy mooy ndaw lan ko digal mu def ko lañ ko tere mu bàyyi ko leneen lu mu doon rek da ko yàq loolu ko defaral dara ndax am nañ pas-pas lépp luñ ko jox nu ànd ko ak moom ba mu jeex lii itam noonu dong la fas yéene defee am na parce que ba leen jógee fi daal sëriñ si danoo woo ne na kat jërë ngeen jëf wàcce nañ leen la muy def ay kilifa nag moom moo ko xam waaye noonu li lii mooy suñu wàll noonu. mboolem kilifa yi teewoon nag ci tooli Hisnul Abraar yi ñoom ñëpp ànd rafetlu taxawaayub Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadre ni nga xam ne noonu la ko liggéey ñoree ndax tool yi nga xam ne moo nekkee fii ci Hisnul Abraar benn rek ci tool yi nga xam ne at mu jot da koy bay waaye lépp ànd ak ay daara. waaw loolu moo doon ndigalam te képp ku yar ci loolu la la nekk loo ba bari nañu sanc ay dëkk ci ak njabootam wala ci ñi mu yar wala ci ay rakam te ci ndigalam lañu ko sante lañu ko sanc te it yar yooyu képp moo tax ñu sanc ko mooy jaamu yàlla ak liggéey ak yar ñi nga xamee ne ñoom leen sëriñ booleel kon Cheikh Ahmadou Bassir bu ñëwee fii di àll bu sori mu gor fi sanj fi ab dëkk ngir liggéeyal fi yàlla jaamu ko fi yar fi njaboot gi tudde ko xusnul maab xusn eh, kon loolu jaar na fa maamam jaaroon jaar na it fa ay waajuram jaaroon loolu nag moom la ñuy nawee kilifa ndax nekk ci taax yomb na jafewul waaye di jafe mooy génn ne faseet dem ci àll ba fu dara néewutoon nga fexe ba jëmmal fa dara loola mooy liggéey bi kon dara moom mu ngi ci waar wi ñu koy ñaanal nag ba yéene ji nga xam ne moom la am yàlla may ko ak tal ak wér nga xam ne it ñoo ànd moom liggéey bi di ay bokk te ku nekk am barabu boppam waaye jàppale ko ci liggéey Sëñ Tuubaa bi tax fu mu nekk ñu def moom ñooñu it ñu ngi ñaanal Cheikh ba Bassir rek la ñuy di ñaanal mooy yàlla motali li seeni mébét ba lépp luñ bëgg a liggéey ñu mën koo liggéey ci kàttan am nañ mbégte bu baax nag ci ñëw ci barab bi ndax lu baax moom képp koo gis war koo seere xam le ne lu baax a ngi nii ba képp ku jugit mën a jaar ci yoon wi lu jafe la sañc waaye nag laa bokk ci yoon wi ndax sëriñ Tuubaa bu fekkoon ne dafa yar nit ñi rek bàyyi leen ñu toog kon bu bëggee mbir dana jafe wala mu sàkkoo ko koo xam ne waru ko faa sàkkoo waaye dafa yar njabootam ak ñooñam ba noppi jàngal leen liggéey jox leen ndigal ñu dem ci àll bi sañc ay dëkk liggéey jaamu yàlla ba am loo xam ne danañ ci mën a sàmm seen diine ak seen gor kon ñu ngi sant bu baax tey gërëm dañu ma def foofu kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ Bachirou Mbacke Abdou Khadir mi nga xamante ne bii moo woote woon liggéey bi nii ak sama sëriñ bii di sëriñ Mourtala mu sëriñ Modou Abdou ñu fekk fii itam sëriñ Modou si jëwrin ñu ñëwoon taxaw liggéey bi nga xamante ne bii mu ngi tàmbalee woon ci sëriñ maam Cheikh Sarr moom sëriñ Bachirou Sarr jaamu sëriñ Touba ñoo ñëwoon fii déqi si ko ba yàlla dogal loolee ni ko sëñ bi bëggee woon ñu defee ko noonu ginnaaw bañ ci jógee itam mu ñëw sant ko sëñ Sidi Naar jenn moom sëñ Naar mu ñëw euh, doon bàddali euh, liggéey bi euh, liggéey bi nag macha allah gis nga ko ni mu demee nii toppatoo nañ ko ci na mu gën a gën a rafete taxawu ko itam ci na mu gën a rafete ba dajale nañ fi junniy saako yu manqué yi téeméer ak fanweer ak benn kon defe naa ne loolu la ci sëñ bi bëggoon moom mën na si ne am nañ ko. xanaa di eh, maase soññi taalib yi yëpp rek ndax la ko Sëriñ Tuubaa waxee ni Tuubaa li xabdin muridin saadixin lahum bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyatin loolu war naa tax ku nekk rek eh, soññi sa bopp ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi te sëñ Basiiru Mbàkke Abdu Xaadir keroog bi muy jox sëñ Maam Cheikh Sarr liggéey bi ndeq mi dama ko fekk fële ca eh, Mouré mu ne ma tool yi nga xamante ni mooy tool yi ceyeen yi lépp lu ma fi liggéey sëriñ sëñ sëñ mun Muntaxa laa koy teg ci loxoom yeneen tool yi nga xam ne mooy tool yu muure yi lépp lu ma fa liggéey eh, sëñ eh, xalifa sëñ eh, Abdou Khadir bi la koy teg ci loxoom kon nag mën nañoo wax ne lii lépp rek ci sëñ Touba la dellu si man nag maa ngi koy ñaanam ndam la sëriñ Saliou Mbacke amoon ca Xelkom moom itam mu am ko ci toolam yi ci barkeb sëriñ Mountakha mi nga xamante ni moom la ñu jox liggéey bi. kon nag sëñ bi kàddu yaa ngi noonu ñoo ngi ñaan yàlla fekk ko ay déwén déwén ci barke borom Tuubaa jërëjëf. jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu mbay ci Sénégal muy le ministre de l' agriculture di Samba Ndiobène Ka àndoon nag ay autorités administratives yu nekk ci Jolof ñoom it ñu ñëwoon teew fii ci Isnul Abrar ci toolu Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdou Khadre yi bi ñu agsee ba Serigne bi dalal leen yebal na leen ñu dem ci tool yi daal di visiter lépp loo xam ne moom moo ci jëm ak liggéey bi nga xam ne mi ngi ko fay def. ginnaaw visite bi nag le ministre de l' agriculture Samba Ndiobène Ka am nay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko fa. mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi nee na mi ngi nuyu kilifa gii nga xam ne moo ñëw ci tool yi di ministre Samba Ndiobène Ka neena na yaag ñi nga àndal ñëpp nee na di la sant ci teewaay bi di la ci gërëm nee na ndax nii mu ko doon wax loo léegi. nee na noonu la ko sëñ Bas waxe léegi na ko da seet si tool yi te daa bëgg bu ñëwee nag mu fekk la ca tal dal ba mbooloo mi nag ñoom ñi ngi ci àll bi dañuy liggéey daanaka ñi jege fii ci dal bi rek ak lenn ci jëwriñu kilifa yi ñoom la wax ñu ñëw fekk la teeru la fi nee na ñoom nag liggéeyal sëñ Tuubaa rek mooy seen métier ndigal lii sëñ Muntaxa Mbàkke nee na teel na ko ko jox lool banu nu gàmmoo ba noppi ginnaaw gàmmu gi gaaw ba ca sës yónni sëñ Cheikh Abdou Latif jarbaatam jottali ko ay cantam ak i ñaanam na ko nag nee ko jox naa ko ndigal tooli Cheikh Bass ya tudd Isnul Abrar fu ndeq ma noppee ak naaf ba na dem baddali ko bàcc ko jëri ko dajale ngooñ ma ak gerte ga loolee nag ci nga ñu fekk nii ñu nekk ci nee na ñoom liggéey rek liggéeyal sëñ Tuubaa loolu dong la ñu xam mooy sunu mbir nag nee na ci lañ tënk suñ lépp nag nee na mi nag bari na ñi ngi ci àll bi ne lañ bàyyi ko ndakaaru ay biis bàyyi koo na fa kees mbooloo jóge na fa mbuur ak xaban kajoor it noonu saalum noonu gannaar noonu lagan noonu tuubaa gi mbooloo mu bare bari jóge na fi ñëpp ñëw nañ ngir jàppale ñu ci ndigal li ndax ñun liggéeyal sëñ Tuubaa rek lañ xam sunu maam Cheikh Issa Diène lu ne liggéeyal na ko sëñ Tuubaa te moom musta wàcc ngërëm lu ne sëñ Tuubaa gërëm na ko ko waaye musta wàcc fu mu toll rek mi ngi ci di liggéey ba àgg ci foo xam ne ña ca àgg bariwut ndax ci lu wér ku sëñ Tuubaa mujj ne sama këru njaareem gi mënatuma fee jëfandikoo dara lu ma laal ma jege ko loola ne ma bul fàtte Isa ak waa këram nee na ca loolu moo mii mas naa toog ak sëñ Ablaat moo wax sëñ waajuram sëñ naar ne ko loolu yi nga dégg murid ji di ko wax nee na loola lu wér la waaye nag yëfi Seex Isa moo toll woon noonu ci sëñ Tuubaa kon nag ñun loolee rek la ñuy roy nam ko waxe woon ca appel ba it sunu maam Cheikh Mouhamadou Lamine Dieng mi njëkk a doon xalifab sëñ Issa armeel yi bàq yii moo ko liggéey ci jëfam ak jëfi taalibe yi mu àndaloon te booba am na lu toll juróom-ñeen fukki at ba tegal te Serigne Touba moom it gërëm na ko ngërëm lu ne seereel ko it ngërëmam seereel ko it ak murid saadixam ba àgg moom ci ne ko yow Mouhamadou Lamine Dieng warlul naa la koo gërëm mel na ne maa ko gërëm waaye kero bi ko sëñ Ablaat joxee ndigal lool yi ak li muy màggat màggat dane ren jii soxlawu ma sax aw dàll samaw dàll bu daggoon dama koy fas feek ndigalul sëñ Ablaat li àggut soxlawu ma dara bi miir bi àggee bañ nekk ca jàkka ja ba toll ci xubba ba ci biir loolee ci la wàcce ab liggéey kon nag nun roy leen képp moonu war lañ nekkoon loolee rek lañ nekk liggéeyal sëñ Tuubaa rek ndigalul sëñ Muntaxa moo nu fi andi te faneen fu demit moo ñu fa yóbbu lii ñu ko waxee léegi rek kon noo ngi lay sant bu baax di sant ci teewaay bi yaag ñi di leen ñaanal di leen gërëm di ñaan yàlla mu dolli xéwal yi ak jàmm ji di nuyu nag maître Diop mii nga xam ne waaye wëllëreem la lool sëriñ Basiiru boole woon leen nee na gise bi sax taxul mu bari waaye jàpp na ko bu baax samay rakkitam ñoom ñëpp ñu ngi fi nee na xam na ne ñenn ñi dañoo ne ca waar wa te fii téléphone bi réseau bi day manqué waaye buñ ko mënoon ñëpp la ñuy woo ñu teew fi waaye sëñ Basiru mii mooy rakkam topp ci moom moom la def muy jëwriñu liggéey bi mi ngi noon noonu toog ñi mel na ñoom kon day mel na ñëpp teew nañ nee na jëwriñu daara it mënut a lim ñëpp nee na jëwriñam yi ne ci réew mi mënut a lim ñëpp waaye daal na nga xam ne ñëpp ñëw nañ ñi nga xam ne seeni maam dañoo àndoon ak Seex Isaa ba Seex Isaa seexal leen mënu ma leen lim ñoom ñëpp. bëgguma limite di fàtte waaye daal da nga jàpp ne ñu ci bari ñu ngi fi kon sant nañ bu baax la ca des nag diggan diggal taalibe diggante taalibe yi sëriñ bi moom bu yeewee dana ko jottali taalibe yi jërë ngeen jëf sëñ bi dama lay yeggalal nuyu cant ngërëm bu président de la république bu premier ministre am Amadou Ba bu guvernement Sénégal gépp waaye nag ma yeggale yónent mooy lan mooy sàkku ñaan sàkku ñaan nag ci yéen ndaxte nag dañoo wax ne boo ñëwee fu ñu naan allahuma yàlla nangu da nga cay góorgóorlu war caa ñaanal ñaanal réew mi ngir jàmm sax ci réew mi suñu mënee toog ci jataay bii jàmm moo fi xëy si moom la ñuy ñaan it mu yendu fi di ko ñaan it mu fanaan fi suñu mënee dem juma ak jàkka jàmm moo yewwoo foofa yendu fa fanaan fa kon lépp lu ñuy ñaan président Macky Sall nee na bokk soxla ñu ñaan jàmm sax ci réew mi waaye bokk na ci li muy ñaan waaye bokk na ci li muy ñaan li nga xam ne commencé na ko ci réew mi li nga xam ne commencé na ko ci réew yàlla saxal ko yàlla saxal ko fi mooy ay baax baax mooy ay baax baax ay jëf yu rafet la des nag la des nag ñu fàttali suñu bopp ñu fàttali suñu bopp ñun ñëpp ay jaami yàlla lañ te ala kulli haal bis ci bis yi mu ngi ñëw bis ci bis yi mi ngi ñëw juróom-ñaari mètre percale képp la ñuy yóbbaale bis boobu nag daa jara waajal ci wax bi ci jëf ji ak ci doxalin wi ndokk nag li ñu fekk fii de mi ngi koy waajal moom tool yu tool nii ki nga ci njëkk a dundal mooy bàyyi ma yi dañ leen di fàtte waaye nag mbirum sunu boroom la de subhaanahu wa taala kon ñoo ngi koy waajal beneen waajal bi mooy ndaw yi ñu fekk fii ndaw yii day nekkun ci réseaux sociaux yi di nekk ci internet di wax naka sudut noonu wala ñuy jëf naka sudut noonu li seen yitte mooy jàng alxuraan dem ca tool ya liggéey ak jàngal leen teggin kon daal yéen mën nañoo wax ne yéen a ngi def jihaadu nafsi moo tax président wax na kon nañ leen dooleel nañu leen jàppale ci biir ak ci biti bu dee nag nañ leen jàppale dafa gëm ne am na lu ñu def am na lu des ñu ñaan yàlla nag mu ñaan nag moom ci boppam yàlla loolu mu des mu continuer di ci góorgóorlu waaye gëm na leen nit jaamub yàlla la mënul matal lépp ala kulli xaalin dana am lu mat am lu manqué li mat daal nañ ko sant yàlla li manqué ñu xam ne jaamub yàlla rek la moo di waaye li woor ba wóor li yàlla def loo jaamu yàlla yi ah li yàlla defalut jaamu yàlla yi buñ ko seentu ci jaamu yàlla beneen ndax yàlla mi bindi jaam yi kat moo mënoon a matal defal ñëpp defal ñëpp lu mat a mat waaye daa jox ñii lu bari jox ñi astuut xañ ñeneen ñi kon nag muy président woo muy ministre woo muy sëriñoo ak koo ci mën a doon rek daa am rek looy bay ci waar wi leneen li nga bàyyi ko foofu su yàlla andee keneen mu bay ko waaye daal ku wax sa aqulaay taala xam na ne mbay daal sensé na ci président Macky Sall yéen béykat yi yéen xam ngeen loolu ña dul béykat nag ah, fa nu féete ba féete woo ko mooy wax ñoo nga ca kon ñun ci liggéey lañ ne ci waar wi lañ ne nee daal dañuy sàkku ngeen ñaanal nu waar wi ñu nekk yàlla bañ ñu cee bewloo ndax bewte kat daa jege jaamub yàlla te mbewte fu mu dugg la muy yàq moo la muy defar fi may jeexale mooy yónne leen wala ma def yónnent ci sëñ bi wax daal ñu wax sëñ bi na ko na continuer di ñaanal président Macky Sall ak premier ministre am ak gouvernement am ak réew mi ñëpp nee na loolu du lu ñuy sàkku waaye xam nañ na lu am ba noppi la waaye day rafet bu ñëwee ba fii baamtuwaat loola rek ndax xam nañ ne ci lañ leen fekk leneen li moom fële fa ñu nekk muy ministre agriculture protocole amul foofu ay baykat ay sàmmkat doomu baykat doomu sàmmkat juddoo ca tookor ba màgg ca xurwa nee na kooku amul protocole bu ngeen ma soxlaa wala ngeen soxla ci samay service amul protocole nee na bismillah rek yéen nañu fa bay su ngeen fi nekkutoon jërut ñu fay nekk te nag président daa wax lu leer su ngeen manee li ma leen di dénk mënu leen koo mate jëmale ko ci askan wi ngeen bàyyee ma liggéey bi moo may gënal moo tax nag ñu leen di wax naal bismillah lépp luñ ci man lépp luñ ci mënul danañ ci góorgóorlu ba fa ko yàlla yemale kàddu yombul su amee lu baax te jóg te jub ñu sante ko borom bi subhaanahu wa taala su amee lu ci dëng ngeen xam rek na jaamu yàllaa doon wax matut di ko jégalu bu baax a baax a baax. ginnaaw ñeenti fan yoo xam ne liggéey nañ ko ci la liggéey bi mat ci talaata ji dëppoo ak le 27 novembre 2023 ñu roñ mboolem ngooñ mi nga xam ne ñoo nekkoon ci tool bi indi ko ci daara ji liggéey bi lépp mat. sëriñ Serigne Bassirou Mbacké moom Serigne Abdou Khadr daal di demaat visiter mboolem tool bi gis ne liggéey bi liggéey nañ ko ci liggéeyin bu mucc ayib lépp jaar yoon. xolam sedd lool ci ki nga xam ne moom lañ sentoon liggéey bi muy Serigne Sidi Naar Diène ginnaaw bi nag ci lañ amal jotaay boo xamante ni ci lañ yëkkati ay kàddu yeewi mboolem taalibe yi nga xam ne teewoon nañ fa boole ci ñaanal leen ci liggéey bu rëy bi nga xam ne defati nañ ko. بانك بارة لخوت منك كبي العجيب يا الله عطى الأسيس لاسي وجات في أباد إلى سواي الإيداع والضر يا الله أنت المقيت لاسي خلقت لي رقادا بها إسحاق إلى الجنات يا الله mbooloo mi sëriñ bi mu ne asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ bi nee na mi ngi nuyu mboolam mbokki taalibe yu fi teew yëpp nee na mi ngi jiital ci nuyoo bi sunu kilifa gii toog di la géey bi neena mi ngi nuyu mboolam taalibe yépp di leen sant bu baax di leen gërëm ndax dañ leen a woon ngir jëmmi yàlla ak Cheikh Issa ak sëriñ Touba ngir la jël Serigne Touba ngeen wuy sunu nam rafete defe ko noo xam ni kawe na njortam nee na kon sat na leen bu baax gërëm na leen bu baax taalibe yëpp bayiwul kenn fépp fu waay bàyyi ko rek ndakaaroog mbuur ak xabbaan ak nag la ko wër cees mbooraag la ko wër Touba ak rek fu mu lim ak fu mu limul fépp nee na mënu koo dajal waaye mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nee na lim leen fi wooye woon defe ngeen ko nu kawe njortam ndax liggéey bi bu fekkonte ni ngelaw li gelawoon na démb nee na kon yaakaar na ni lépp mënoon naa sotti démb kon nag nee na moom mi ngi sant yàlla bu baax di sant it Cheikh Mouhamadul taxaa Mbacké mi nga xam ni moo ko joxoon ndigal li ndax ku lay liggéeyloo ku ne dalaa bëgg a jariñ te bëgg noo jariñ rek moo tax mu nuy liggéeyloo ba Basirou mii nga xam ni tool bii mooy jëwriñam mu def ko fi ngir jëmmi Serigne Touba moom it ñu ngi koy sant bu baax ndax bu ko fi deful woon duñu fi mën a ñëw ba defi def lii te la jël Serigne Touba ci la sunu njariñ nekk adduna ak ra moo gën lépp kon nag képp ku la ko def defloo war nga ko sant bu baax kon moom it sant na ko bu baax nee na mi ngi sant mboolem taalibe yëpp di sant bokk yëpp di jiital ci cant gi sëñ Basiiru Jenn mii nga xam ni moom la defoon jëwriñu liggéey bi ak mboolem rakkam yëpp ñu ci bari teew nañu fi sëriñ Souhaïbou mi ngi àndoon ak moom fu taxaw mu taxaw fa ak Cheikh Abdou ak sëñ Jiili ak Cheikh Ibrahima sëñ Bakken ñëwoon na fi waaye dellu na sëñ Youssou dellu na waaye ñëwoon na démb nee na xam na ni lim bi nag dadul a lim ñëpp jawriñ yeeg du mën a lim ñëpp ndax day bañ a waaye kilifa yi nga xam ni seeni maam. dañoo àndoon ak Cheikh Issa bala Serigne Touba defaloon Cheikh Issa seex Issa defal leen ko boole leen ak mbooloo lenn ci ñoom ñoom it teew nañ fi waaye damay tudd rek li ñuy dalilu kër ga bàyyi mbooloo ma waa kër seex Daaru ngañ tànni ñëw nañu nga xam ni seen maam moom lañ tudde Serigne Naar jenn mii bokk ci bokk ci giiri naar yi nga xam ni ay tàndax yu lañu te tànni ni mooy tàndaxi yu ay sharif lañu seen maam ñett ñi jëkk a sopp Cheikh Issa ca ñooñee bokk waa kër maam Mor borom daaru ñoom ñëpp ñëw nañu waa kër maam Ali ñi nga xam ni seen maam ñoom itam bi muy ànd ak Cheikh Issa booba Cheikh Issa jébloogul sax ñëpp ñëw nañu waa kër sëñ Daam Surang ñoom it ñëw nañu waa kër sëñ Mor Mati Wadd ñoom ñëpp ñëw nañu te kenn ku ci nekk danga ngaa ànd ak mbooloo kon nee nañu ñu may ko rek mu yamale foofu lim bi ndax bu duggee ci jëwriñ yi du ko mën a matale te it mënta tudd ñëpp te bëggut a tudd kenn bàyyi kenn transporteur yëpp nga xam ne liggéey bi li ci ëpp solo ñoo ko def indi mbooloo mi delloo leen loolu ñoom rek ñoo ko man muy borom wata yi sant nañ ñëpp. nee na bu delloo fa mu leen wooye woon dinaa bindaatu communiqué kenn ku ne mu jaar ci turam sant ko sant nañ safoor seeg ñëpp na yi nekkoon ci waañ wi sant nañ leen bu baax nee na mi ngi ñaan nag nu teewee ko nanga ni déwén nee na liggéey béet sëriñ Basiiru mii ko def nee na wax na ko ministère bi démb nee na defu ko ngir wut xab xaalis defu ko ngir wut am koom liggéeyal sëriñ Touba moo tax mu def ko nee na loolu wax na ko budul benn wax ko ko budul ñaare te liy firnde ji li fi génn daaw ci loxoom moom mii la ko teg mu ànd ak sëñ Jili Njaay mii jébbal ko sëñ Muntaxa ni ko tool ya nga ma digaloon ma liggéey ko muy coolu sëñ Basiiru Mbàkke ya la ca génn ngi nii nee na yow mii yaay sëriñ Touba yaa ko moom moo la ko doon liggéeyloo te nee na léegi nit waxaat na ko moom sëñ Basiru mii ni ko lépp loo fi amee lu mu bari bari bari lu mu néew néew nam ko defoon rek la koy def nee na léegi sëñ Tuubaa rek la ci jublu ndax moom su ma ko xamul it miin naa ci moom dara nee na miin na ci moom lu bari lépp lu koy mën a waxal bëgg sëriñ Tuubaa ak gëm ko ak jeex ci moom fonk ma ñaandoon ak moom da leen di waxtaane fu mu toll nee na foo xam ne boo koy wax ku bokk ci kër googa sax du fa nekk nee na loolu lépp nag bëgg sëñ Tuubaa rek a ko waral ndax ñoom mag ñi ñooy jëf sëñ Tuubaa kon nag lépp lu waa si ñoom rek sëñ Tuubaa nga ko waxal taalibe yi nag taalibe yenn yi nag mel na ni am na lu leen daa faral di nettali mel na ni dégg nañ ko nee na dégg na ci sëñ Baara Jenn mu ni Cheikh Issa moo ko nett caw làmmiñam Serigne Touba da koo mas a ni ko Issa mbaa amoo benn taalibe bu nanguwul a liggéey nee na Cheikh Issa ni Serigne Touba Mbàkke aw ma ko wala bëriwul mu ni ko soo ko amee na ko wàcc taalibe murit bu ko sëriñam mënta liggéeyloo du ko jox alalam mënalu ko dara mënalu ko dara tey ak ëllëg kon nag yéen loolu mel na ni. xam ngeen ko ba buñ leen woo rek ngeen ñëw ak seen yéene ak seen pësteef defe ko nu kawe njortam kenn ku ci ne la nga fàggoon bi ngay ñëw sax am na ci ñoo xam ne jeexaluñ ko kon nag sant na leen bu baax sëriñ beet taxawu bi ak yitte ji nee na da koo wax ni ko sëriñ bi dafa mel ni daa ëpp ndax nun kat li mu xamoon bu nu sëñ bi bu naa masaana sëñ bi di liggéey sunu waajur sëriñ naar mbaarum ngeer lan koy defaral defaral ko sunu bopp xel koom gii nekk nan fa ribib ëkk weer wu manqué ñaari fan te ci loolu la seriñ bi nekk ñu nekk ca loola di lekk mbaxal yoo xam ni daanaka ndox rek lan koy defare kon nag lii moom bu ko defee da koo def ngir xéewali sëriñ Tuubaa yi rek moo yokkoo noonu mu def ko kon nag san na ñëpp gërëm na ñëpp yal nañ ko teewe naga di déwén mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nee na bokki jullit yi bokki taalibey murit yi fi nekk yépp rawatina njabootug Cheikh Issa Diène nee na mi ngi yëkkati kàddoom ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa mi fiy jëmmi Serigne Touba di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér ba mbooleem li mu yéene ci liggéeyal ko sëriñ Touba suñu borom may ko kattan ak wér ba mu àggale ko ci barkeb Serigne Touba nee na mu yëkkati kàdduy cant. yu bàyyi ko ci sëriñ Touba Cheikh Mamadou Mountakha kàddu cant yu ànd ak ngërëm jëme ko ci jëwriñam ji di sëriñ Sidi moom sëriñ Naar Jenn ak nag mbooleem njabootuk sëriñ Naar Jenn gépp ak mbooleem njabootuk Cheikh Issa Jenn gépp sëriñ Sidi sëriñ Mountakha nee na mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci ndigal lii nga xam ne moo la ko joxoon daaw joxaat la ko ren te la tax mu jox la ko it mooy sa pësteef ak sa taxawaay ak saw doxin ci yoon wi mu waxaat ko ne ko na wax na la sa diggante ak moom ca jamonoy sëriñ naar nee na la settantal ba seetlu la bu baax gis sa pëseef ak sag dogu ak sa yitte mu fasante ak yow këllëre nee na loolu yàgg na lool booba toogagut ci jotaayu sëñ Tuubaa bii waaye nee na mi ngi lay xamal ne la yaakaar jam amoon ci yow ak pësteef ba mu gësoon ci yow daa dolliku nee na li ko waral jëf yi ngay jëf di ko jëf ci kër sëriñ Touba wuute wut jëf ja maam Cheikh Issa doon jëf ci kër sëñ Touba kon nee na na la wóor ne sa maam Issa day xolam sedd na ci yow ndax noon rek la daan def ci sëñ Touba te noonu ngay doxe ci moom lépp lu fa xew sa jëf kenn du la ci man lépp lum la digal doo naaslu da nga koy daal song rek mu daanu. kon nag nee na mi ngi lay ñaanal bu baax yaag mbooleem ñu topp ci sa ginnaaw di say rak di say taalibe yal na leen sunu borom defal pajuk aajo liggéey bii ngeen di liggéeyal sëñ Touba yal na ko sëriñ tubaa tàbbal te liggéey ba maam seex Issa daan liggéeyal sëriñ Touba nee na liggéey bii yal na tàbbi ca liggéey booba. te nee na moom rafet na ci njort bu baax waaye nee na ak cantam ci yow am na fu mu tàmbalee de waaye amul fu mu yem ndax nee na moom yàlla da koo nattu mëne wut sax di santaane waaye xam sa te xam ne foo toog fu ne tuglu liggéeyum sëñ tubaa rek moo la fa bàyyi te lii ci sëñ tubaa rek la jëm nee na moo tax mu sant la ko kon mi ngi lay ñaanal yoon wi nga dëgmal yàlla nga àgg te dara bañ laa gàllankoor te nga sut maam Issa aw fan ak sëñ Baara ak sëñ Naar la ca des nag kàddu yu gàtt lay doon ndax jataay bii day jataayu pësteef ku gis jataay bi ni mu demee xam ne kat Serigne Touba beral na waa Njenne Xaas nee na ndax Cheikh Issa sunu borom da koo defal tawféex sëriñ tubaa bëgg ko lool may ko lu baree bari ci moom amutoon sax fu mu ko yamale ci boppam lu ne mu man ko koo laaj te li ci ëpp ci doomi sëriñ tubaa laa ko jële muy Serigne Sohibou ak sëñ Abdou Khadir wala sëñ Saliou kon lu wér a wér la. la ci ëpp solo mooy jumaayu njaareem ji bam ko koy digal da ko wax ne ko sunu boroom kat moo ma digal ne jumaa ji naa ko jox seex isaa jenn mu taxawu ko te yéen ko gën a xam loolu. nee na ba mu àggee itam Serigne Touba lam julli si ca jumaa ja bariwut ñaari xiit la fa julli. waaye ba muy dem ca jumaa ja booba ñaari oto kilifa yu mag ña fa ñu gaare ngir bëgg sëñ Touba dugg ci seen oto yooyee waaye dañ koo yëkkati ba oto Cheikh Issa ñëw sëñ Touba dugg ca oto Cheikh Issa ba ànd ak moom Cheikh Issa ca biir oto ba kon moom taw feex ji mu am ci sëñ dafa bari la ca gën a yéeme laajoon na Serigne Touba ne ko dafa am kat lenn ci suñ mbokk yi yooyu wax ne ashabtum tayibaatikum fi hayaatikum dunya loolu nag jaaxal ma lool ma ne naa ko laaj ba xam Serigne Touba ko isaade sama mbir mii li ma ci sëñ boroom xamal mooy haza xataa una fam nun awam sik bi xayri isaabin loolu képp ko yaakaar sëñ Tuubaa rek sëñ Isaa tontuwaaleel na la kon moom daa amoon rek feex ci sëñ Tuubaa sëñ Abdou Khadir daana wax ne sëñ Gaawaan ak Seex Isaa ñoom ñaar day mosuñoo gis merum sëñ Tuubaa lu sëriñ Tuubaa nekk nekk ci xaal bu leen seenee rek xaal ba daal di jeex takk kon yéen loolu liggéeyub Seex Isaa boobee moo leen tabbal ci biir liggéey yii yépp dadaan def itam lum xalaat rek na sëñ Tuubaa bëgg na ko bala ko ko sëñ Tuubaa laaj mu yéen mu dem wuti ko andi da def lépp lu sëñ Tuubaa xalaat bala ko ko digal mu dem wuti ko andi mu dem wuti ko andi ba mujj sëriñ Touba fa mu romb ci njaareem rek sàkket yeeg ak lu mu romb rek mu ne ko bul fàtte Isa ak waa këram kon yéen na seenum xel dal bu baax bu baax a baax a baax Serigne Touba waxoon na sëñ Isa ne ko gërëm naa la ngërëm loo xam ne ridan laa suxta baxdahu na ko it gërëm naa la ngërëm loo xam ne defaru nga ba faw ba dara mënatu yàqal ba man mii di Serigne Touba defaroon la mënatuma laa yàq yow it yàq sa bopp waaye Cheikh Issa na ko nag lépp nag jël naa ko defaat ko pas-pasum liggéeyal la ak jaamu yàlla rek kon moom yéen daal sëñ Issa leen fàggul lii ngeen am. kon nag noo ngi ñaan ci barkeb sëñ Touba ak liggéey ba mu liggéeyal sëñ Touba ba sëriñ Touba dëxaloon ko ci àdduna ba muy tabax taax ma ca ndànd na ko bu àggee danaay fa ñëw seet si la far sëriñ bi ñibbi si Touba te sëñ Touba lu mu wax dana ko def ci làmmiñu sëriñ son yi bu laa ko déggee nam ko ko dëhale woon noonu la ko fekke foofa def foofa def faak moom lu baree bari wax ak moom lu bëree bëri bokk na ca li mu doon netti naar kan toogal toogal rek waaw da da ko ne yoon wi day alfulkul masoon la daa mel ne gëréemuk tukkal goo xam ne luñ ko teg attan ko lum diis diis bam tes nag attanazul mooy tubaabee na ko lool nag sunu borom waxante na ci ak man ba xamal ne ma lu toll ne puso attanu ko ci kon nag yéen Cheikh Issa musal na leen ci loole ndax njabootam gépp ku leen gis xam ne ay murid saadix rek lañ melokaan ya murid ya meloon démb ku ñëw fii xam ne pas-pas boo dara sëpp ko ci kon moo leen ko fàggul kon la taxoon sëriñ Touba mu jaral ko ñëw ci àdduna mu gis ko nam ko daan gisee kon kooku ab cëram ci Serigne bi te lañ fa waxtaanee am na ci loo xam ne mënees ko wax ci kon sant ak ngërëm rek di ñaan ci barkeb sëriñ Touba ñu teewaat fi na gën a fi waay jëf lum tuut tuut yàlla na ko sëñ Touba nangu ndax sëriñ bi kat istara minal mu'minina anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna kon la sëñ Ablaat waxoon saxaaba yi ñi jiitu ci diine waaye nag luñ ñu gën gën waruñ ñoo ëpp jom waruñ ñoo gën a gore kon nañ fexe ba suñ dund gépp ñu liggéey jeexal ko ci liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey bii nag fi may jeexale ci barkeb sëñ Tuubaa yàlla na ko sëñ Touba tàbbal te liggéey ba Seex issa doon liggéeyal sëñ Touba na ñoo ngi koy nangu ko baax te yàggal fi nag jëwriñam bii di Serigne Sidi mu ànd ak njaboot gi yëpp ba fum ko bëgg a yóbbu mu àgg fa ci barke sëñ Touba na ñëpp nangu ñaan. amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin amin amin amin